amin yaa rabbal alamin yàlla na yàlla dolu jàmm ci sénégal mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu fas yéene kon àndaat ak yéen ci seen numéro bu njëkk ci atum 2021 ñi nag lii di ëttum politique te ji nag ñu koy sekk ak Ibra Seck ingénieur géologue la MBA en administration en gestion des entreprises bokk itam ci APR rawat na itam ci benn kuréel gu ñuy wax association des ingénieurs géologues bokk itam ci association des géologues d'Afrique Afrique su ko defee ñu jox ko kaddu gi mu nekk askan wi euh, sëñ Ibra asalaamaaleykum. maaleykum salaam euh, monsieur Fall. maa ngi lay nuyu di nuyu waa Afia. di nuyu auditeurs yi ñuy déglu yëpp. di nuyu aussi waa Grand Yoff di jàll ñu fi jot a jóge ñu ci mel ni député Loulou nga xam ni ko active la woon ci euh, APR Grand yoof ak yaa Seyda Mariama Niass ak ñëpp ñu fi jóge rek. yàlla xare leen àjjana. ci présentation bi doy na am déet am na loo ci bëgg a yokku. waaw présentation bi de euh, mën naa ni li ci xaw a manqué rek mooy euh, en même temps chef de service régional des mines. de la géologie de Saint-Louis et aussi président de l'association des géologue du Sénégal bi nga cité léegi. loolu sax def ñu yóbbu euh, ci euh, fi nga xamante ne fa la ñuy dooree waxtaan wi euh, moo di jamono ji tembe li nga xamante ne Sénégal mu ngi koy dund te ñu bëri mënuñ ci am ay explication yu war wala sax mu tiital ñenn ñi lakk-lakk bi nga xamante ne moo am fale ci dëkk bu ñu wax Ngadiaga d'abord lu mel nii est-ce que yow bi ngay fàttaliku fi Sénégal mus na am ci mi am ak tamit lu mel lan moo koy faral di indi d'abord balaa ñu ñëw ci li nga xamante moom mooy tolluwaay bi. waaw d' abord euh, ma lay gërëm ci question bi. parce que dafa doon question boo xam ni sénégalais yi depuis lors ñu ngi ci bëgg explication bu leer. xam nga euh, ga dafa am gaz boo xam ni société bi naan Forteza moo koy exploité. Mm-hmm. ay américain la réserve yu am solo la nag ay trois cent cinquante sept million de mètres cubes. léegi nag ñoom depuis deux mille huit ñu ngi exploité puits boobu mooy teen boobu. teen bi explosé. teen bi nag ay niveau la. moom la naan réservoir parce que gaz ci ay réservoir lay nekk mu ngi mel ni ay chambre exploité nañ premier niveau bi bu mu jeex deuxième niveau bi bi ñu yegsee ci troisième niveau bi nag la leen lii di door a dal xam ni ay accident yoo xam ni ça arrive fréquemment dans l'industrie pétrolière léegi nag li koy indi cause yi moom bari na parce que euh, gaz buy génn dafay ànd ak pression bu am doole léegi gars yi bu ñuy foore am na benn bout de forage boo xam ni dañ koy injecté maanaam dañ koy bàyyi muy wàcc ci puits bi moom la naan euh, la boue de forage léegi nag dafa war a am équilibre entre pression boue de forage boobu di wàcc ak pression gaz bi génn donc équilibre boobu bu amul rek gaz bi mën naa pression bi mën naa am doole mu fël génn ci biti loolu aussi bu dajeek euh, benn étincelle bu ndaw rek gaz bi day génn loolu benn cause bi la beneen cause bi nag mooy boo xam ni gaz bi bu génnee gars yi xam ni euh, mënuñ ci lu bari dañ koy taal dañ koy taal am na ñoo xam ne ñoom ñoo koy taal mais bii nag taaluñu ko moom moo tàqal boppam donc dafa doon loo xam ni euh, euh, ça arrive fréquemment dans l'industrie pétrolière. fréquemment euh, même au Sénégal ou bien. non Sénégal mi ngi fi door a am Sénégal mi ngi fi door a am parce que Sénégal xam nga gazu Gadiaga bi lañ door a exploité. exploité nañ ko depuis année 96 yi ñu ngi koy exploité bon c' est vrai que ni Sénégalais yi léegi lañ koy door a xam parce que réseaux sociaux yi développé wul période yooyu léegi la développé moo tax ñu xam ne ñu ngi exploité gaz bi mais mën naa ni depuis boobu dalu leen donc euh, bu leen dalee rek. dafa doon loo xam ni euh, peut-être gënul gënalu leen daal. exploiter gaz bi loolu noo ko expliquer euh, naka la ak tamit nan la demee am na ñu nga xamante jàpp nañ ne euh, Sénégal pétrole bi ak gaz bi ndekete yàgg nañ ko exploiter te Sénégalais yi xamuñ ci dara. waa xam nga dafa bëri ay niveau. gaz bi yàgg nañ ko exploiter mooy li ma la wax léegi depuis année soixante yi ñu ngi doon exploiter ndànk-ndànk waaye amul woon doole léegi nag. Forteza moom bi mu ñëwee dafa reprendre puits bi loolu yàgg na ay 96 la di ko exploiter moom di jaay Senelec pour mu defal courant léegi nag Senelec moo amoon exclusivité bi dem nañ ba benn période nag euh, ñoom dañoo soxla ibbeeku waa Forteza pour jaay ku leen neex parce que amoon nañ ay problème trésorerie donc il voulait ñoom libéraliser vente bi ci leen kase contrat boobu signé ak Sococim pour jaay leen gaz bi ñuy togg ciment bi parce que gaz aussi dafa bëri ay utilisation industrielle mën nga ci am courant mën nga ci euh, mën nga ko utiliser comme énergie pour ñuy defar ciment bi parce que ciment aussi ci four bu tàng lañ koy toggee donc actuellement ñoom Sococim la ñuy jaay pour ñu togg ciment bi léegi nag ñoom chaque at bu ñu defee seen rapport aussi état bi am na lu mu ciy am état du Sénégal dina jël paaram bu exploitation bi jeexee ba at mi jeex ñoom dañ ciy jël seen part donc Sénégal mi ngi ciy am dara. mi ngi ciy am dara mais ñu bëri jàpp nañ ne aussi Sénégal la xeej na amaana ni ñu waroon gën a bénéficier wu ci gaz boobu noonu bénéficier wuñ ko ci lan mu ci sa xalaat yow. waa xam nga gaz bi aussi euh, gazu Gadiaga yi réserve yooyu. Euh, bëriwul trop. wax naa la léegi trois cent cinquante sept millions de mètres cubes. mais gaz bi ñu trouvé niveau de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. yooyu réserve yi mi ngi yam ci mille quatre cent milliards de mètres cubes. donc gis nga différence boobu boobu mooy euh, bi waa BP ak Cosmos war a exploité donc réserve yooyu c'est énorme mooy yin découvrir depuis deux 2014 bi donc c'est différent de du gaz de Gadiaga bi ay quantité yu ndaw la yoo xam ni ñu ngi koy jaay Sococim pour mu defar ciment léegi nag Sénégal bu demee ba war a exploiter les 1400 mètres cubes là avec euh, la Mauritanie foofu nag xam naa le Sénégal di gën a yéeme yéeg impact économique bu gaz bi war a am léegi nag euh, société Forteza c'est vrai que ni chaque année war na def des actions sociales au niveau de la RSE waa Gadiaga gis ci seen bopp mais quand même on reconnaît que ni des na des na donc ñoom war nañ gën a góor góorgóorlu pour euh, mën a voilà def des actions sociales au niveau de Gadiaga lakk bi boobaak léegi mënaguñu ko fay tey jii sax la américain yi di fas yéene kon soobu ci mbir mi pour jàppale Sénégal ñu mën koo fay lan moo ci sa gis-gis waaw xam nga lakk gaz dafa dafa compliqué pour fay parce que d'abord du loo xam ni dangay ñëw rek indi sa ndox wala sa suuf fay gaz bi ci suuf lay jóg di ball di génn loolu la bon on l'appelle flow out quoi en terme anglo-saxon donc loolu pour fay ko déjà foog nga fatt fi gaz bi di balle mooy tuer le puits la ko gars yi tudde te loolu da ngay gas benn puits à côté parce que mënoo ñëw ci puits bi lakk bi di am ak tàngoor bi naan yaa ngi fatt da ngay gas benn puits à côté injecté bu ba fatt fi gaz bi di génne ba obstruer ko door a fay lakk-lakk bi parce que boo fayee lakk-lakk bi te gaz bi ballu fattoo ko rek tàkk-tàkk bi du arrêté day continuer te loolu c'est une opération très compliquée c'est pourquoi nag comme Sénégal expertise yi am doyul waa Forteza ñoom ñu woowaa waa Halliburton ñoom c'est des américains yoo xam ni seen xam-xam dafa dafa dafa màcc ci loolu léegi nag euh, ñoom ñu ngi ci commencé nañ opération yi parce que déjà foog seen logistique bi ñëw te loolu xam nga la temps muy jóge ci géej gi di ñëw ak bateau yeeg fret yi loolu c'est des jours donc euh, vraiment bon foog gars yi am patience pour xaal pax euh, fekk peut-être quelque jours mu door a mën a fay mais foofu li ma ci bëgg a dolli rek mooy gaz bi muy tàq actuellement mooy jàmm que mu bañoon a tàq ah oui oui parce que gaz buy génn noonu te tàqul boobu dafa am ay conséquences yu nocif ci environnement bi dama la jox benn exemple bu ndaw mhm. tey sa gazu kër boo ko yoree boo ibbee beg bi nii cosette almet taal c'est moins dangereux mën nga togg li nga bëgg mhm. mais nga dindi woon beg bi ibbi noonu gaz bi muy génn dem sa yoon xam nga loolu c'est c'est très dangereux il mhm. suffit benn étincelle bu ndaw rek néeg bi yëpp explosé c'est la même chose parce que gaz euh, vapeur la donc nga bàyyi ko muy génn noonu ci environnement bi mën na rey gàncax gi population yi buñ ko noyee mën na leen jox ay feebar yu doy waar mais nag buy tàkk c'est moins dangereux moo tax tant que mi ngi tàkk rek xeer la fa war a dal. léegi euh, lan moo war a nekk euh, taxawaayu suñu kilifa yi euh, ci lu mel nii il a fallu que ñu woo ay américains pour ñu ñëw jàpp ci li nga xamante moom moo ci situation bi. loolu jàngat bi lan lay doon est-ce que aujourd'hui Sénégal dafa war a def ay jéego pour que yu mel ni bu ñu amee mu bañ a bett wala aussi ñu mën a am expertise bi nga xamante ne war nañ ko ci mën a mettre en valeur pour que ñu mën a saafara la jafe-jafe yu mel nii. oui effectivement Sénégal war na ci jàngat lu bare bare parce que déjà ñu ngi prévoir exploiter le gaz en mille vingt léegi nag mën naa ni lii c'est un mal nécessaire parce que tàkk-tàkk bi am na te gaz bi ñu war a exploiter en 2023 commencé gun ko donc lii ça doit euh, servir de leçon au Sénégal ñu jàngat ci former de ressources humaines yoo xam ni parce que sapeur pompier yi ñu am amaguñu unité spécialisée yoo xam ne dañuy fay les feux d'hydrocarbures parce que fay lakk hydrocarbure pétrole wala gaz c'est différent dem fay benn tàq-tàq boo xam ni nekkul hydrocarbure parce que nee naa la foog nga fàtt fi affaire bi di génne ba pare door a fay bokkul ak tàkk-tàkk boo xam ni da ngay ñëw rek indi sa raakool commencé injecter ndox pour fay ko c'est différent donc dafa laaj formation bon fan yi nag euh, d'après les informations dégg naa ni état bi commencé na former nos sapeurs-pompiers pour ñu spécialiser wu sur les feux d'hydrocarbures waaw loolu vraiment ñun dañ koy rafetlu te on espère que d'ici deux mille vingt trois deux mille vingt deux dinañ am des unités spécialisées pour que lii ëllëg bu ñu dalee ñu xam ñun ñun euh, ban taxawaay lañ ci am. Euh, askan wi peut-être ñu bëri euh, jamono ji dañoo xaw a tiit est-ce que lii am na rapport ak ay stations yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi c'est-à-dire su ma waxee rapport mooy tey est que aujourd'hui risque yu mel nii par exemple mën na tukkee aussi ci ay station stations ñaanuñu ko yàlla par exemple. waaw bon xam nga c'est toujours c'est un peu différent hein c'est un peu différent parce que bii c'est une. Euh, c'est un puits boo xam ni c'est en exploitation gaz bi di génn di jaar ci forage après ñu jaarale ko ci pipeline yeeg yooyu yóbbu ko bon station essence aussi am na ay risques am na ay risques parce que yooyu aussi je pense que am na fu ñu koy stocké ci suuf hmm? après mu jaar ci raccord jaar ci pompe beeg yooyu moo tax booy jël essence sax dan naan la ay fayal sa portable bul tux ak genre yooyu donc am na ay risques mais risque yooyu ñoom avant station bi di démarrer dañuy def euh, des études d'impact environnemental pour wax yan risque la station bi mën a am te bu explosion amee aussi nan lañ koy fay mais foofu risque bi c'est c'est c'est minime parce que c'est très rare nga gis station essence bu bu explosé. Ibra euh, coowal pétrole ak gaz ci Sénégal euh, amoon na ay jamono mbir mi dafa gënoon takkarnaase ñu ko doon waxee fépp mu amoon sax euh, benn enquête bi ñu ci ubbiwoon ci Alioune Sall xamante moom lañ ci doon tudd waaye jamono ji dafa mel ni débat bi dafa xaw a tegal ci suuf naam sax fan yi moom Alioune Sall seetal nañ ko ba mu set wecc par rapport ak enquête bi nga xamante ne waa BBC ñoom ñoo ko jàllale woon na ci seen benn reportage lan nga mën a wax sénégalais yi par rapport ak mbir moomu noonu est-ce Euh, waxtaan yi ak tamit euh, jéego yu ñu war a def ci exploitation yi mu ngi avancé am déet fan lañ ci toll. waa exploitation yi mi ngi mi ngi avancé parce que ñaari projet la. dafa am projet GTA. mooy Grand torti ay Aymerine boobu Sénégal mooy bi Sénégal ak Mauritanie séq moo nekk au niveau de la frontière moom laa lay wax c'est mille quatre cent milliards de mètres cubes donc boobu pro projet gaz la moo gën a avancé ci projet yi beneen bi mooy projet pétrole bi boobu moo ne Sangomar boobu la kenn énergie yor boobu aussi c'est en phase de développement boobu aussi gars yi ñu ngi sori. phase de développement boo ko déggee mooy période bi ñuy tabax plateforme yeeg usines yeeg yooyu avant ñuy exploiter donc ci phase boobu lañ toll. léegi nag euh, projet euh, Sangomar bi aussi boobu gaz la ak pétrole pétrole la ak gaz parce que pétrole foo ko dégg rek en général day ànd ak gaz. mais projet BP bi bi nekk euh, Grand Tortue bi boobu gaz kase la léegi nag euh, Alioune Sall c'est vrai que ni gars yi taxal nañ ko ci depuis le début mais man defoon naa émission ci rajo yu bari ni leen moom laalewu ci. fii sax waxoon nga ko fii. waxoon naa ko fii parce que c'est des contrat type société pétrolière yi bu ñëwee dañuy xool le code de deux mille quatre-vingt-dix-huit xool euh, quel type de contrat la ñuy signé. en général Sénégal moom choix bi mu jël mooy contrat de recherche et de partage production léegi Alioune Sall moom avant le président Macky Sall di ñëw boobu je pense que Ablaye Wade moo fi nekkoon c'était du temps de du PDS la indi Petrotim Petrotim Limited Petrotim Limited ñëw gars yi jox ko permis bon ensuite par la suite la cédé président Macky Sall bi mu ñëwee nag fekk na décret yëpp gars yi defaroon ko ba ab euh, moom dafa approuvé numérotation rek moo desoon élection yi ñëw donc Alioune Sall c'est bien avant Macky Sall di ñëw la dugg ci dossier boobu léegi nag Alioune Sall moom petro Sénégal la nekk le gérant mandataire sax la parce que dañ ni la code bi daf ni la boo créé euh, boo amee société boo xam ni étrangère la bu ñëwee Sénégal dans les trois mois qui suivent dafa waree a créer une société de droit sénégalais léegi Alioune Sall moom mandataire moom lañ yónni mu créer la société de droit sénégalais boobu muy petro Sénégal mais moom du ci actionnaire parce que Petro-Tim Sénégal SAU la société anonyme unipersonnelle benn actionnaire lay am yow xel mënta nangu société étrangère boo xam ni moom dafa am compagnie wala créer société sénégalaise jël actionnariat bi yëpp jox ko benn nit donc boobu Eding Wang mi moom Petro-Tim Limited mooy unique actionnaire bu petro Sénégal donc foofu Alioune du actionnaire moo tax bu ma déggee ñu naan <laughs> séddoo na pétrole bi mook magam daf may xaw a jaaxal loolu leeral naa ko ci émission yi baree baree bare léegi nag bon président Macky Sall ne ne leen affaire bi na dem justice rek bon c'est vrai que sama raq ngi ci biir mais moom comme dafa bëgg transparence mu leeral ko tey histoire jox na ko dëgg. ñu daal di xuus euh, ci beneen actualité également euh, Ibra euh, Seck moo di le président de la république comme ni mu koy defee en tout cas at bu yàlla sax tradition la mu jàkkaarloo ko sénégalais yi wax ak ñoom yëkkati benn discours discours bi d'abord ban jàngat nga ciy def. waa xanaa rafetlu ko rek. parce que président Macky Sall boo dégloo discours bi wax na ci secteur yu bëree baree bëri moo tax bu ma déggee ñu ngi naan <laughs> président li mu fi waxoon daaw la waxaat ren rek daf may xaw a jaaxal. parce que wax na ci secteur de la santé wax ci enseignement supérieur wax ci immigration irrégulière wax ci tourisme wax ci énergie wax ci emploi des jeunes donc secteur yëpp laal na ko wax ci infrastructure donc boo xoolee sur le plan de la santé la njëkk a wax mu wax ci wax ju am solo mooy euh, Covid 19 bi xam nga Covid bi aussi dafa dafa dafa dafa dafa dafa daaneel économie yu bari ci monde bi tey jii Sénégal ñu ngi doon wax croissance à deux chiffres si quelques année léegi boo xoolee prévision yi mujj a am récession la ñuy xalaat ba taux de croissance bi war a yegg si ay moins de deux pour cent donc loolu bu yegsee ci réew rek dafa war a am ay mesures yu am solo yu borom ki jiite réew mi jël pour mën a xeex ak loolu moo tax boo déggee dans sa communication am na ay mesures fortes yu mu jël notamment euh, ci hôpitaux yi mu annoncé pour tabax ko d'ici deux mille vingt et un. waaw ay centre démodialisé yooyu yëpp wax na ko ci biir communication. au niveau de l' infrastructure gis nga autorité yu mu annoncé. donc boo parcourir euh, discours à la nation bi secteur boo jël. am na ko ay annonce yu am solo yu ci. mais secteur santé boobu aussi euh, d'après li mu wax euh, mais déjà euh, coow li commencé na par rapport ak ñi yëngu ci wàllum santé di ay syndicalistes et tout ñu wax naan loolu daanaka dafa néew trop te itam yëgul nañu sax déjà bu ñu moytul perturbation dina am ci ci système sanitaire bi. ah <coughs> côté <coughs> santé bi de man je pense que président de la république boo xoolee d'abord ñoom la njëkk a prioriser boo seetaanaatee discours bi sax ci côté santé bi la la la gën a yàgg bi muy wax bi mu waxee ci Covid bi ba pare ci la annoncé 33 euh, unités bi hmm, mu war a extentuer d'urgence pour de réanimation à Diourbel à Fatick Kaffrine Kaolack ak Louga six centre de dialyse ak euh, euh, centre boo xam ne c'est pour ñi am maladie cancer donc loolu je pense que de am na solo ci secteur santé bi. maintenant nag recrutement dafa doon loo xam ni par étape lay doon munoo jël benn année rek recruter le maximum possible donc secteur santé bi président am na lum recruter yeneen secteurs yi aussi day am recrutement donc ñoom foog ñu xamee ko noonu daal. te ñoom say su ma juumul sax daanaka fan yi dañuy euh, teg seen préavis ah pour war a dem ci ci grève. waaw waaw xam nga loolu moom <laughs> mën naa ni mook secteur yëpp ñoo noonu lay doxee. waaw boo sa secteur boo bëggee mu avancé di nga day am ay préavis danay am dana am ay grève dana am ay ñaxtu waaye lépp après waxtaan lay laaj préavis grève yi fi amoon bari na mais yi ñu ci gis yëpp buñ toogee njiitu réew mi wala ministre de la santé buñ waxtaanee rek après dina am juboo daal même constat aussi chez les euh, enseignants ñoom tamit euh, dañoo mere président nee nañu daal <laughs> gisuñu seen bopp daal ci ci discours bi euh, li ñu ko doon gën a xaar ci ci li nga xamante moom mooy ci discours bi aussi gisuñu ko ci ci bu baax côté éducation jàpp nga ni aussi le président Macky wax na ci lu mu war a wax. waaw mooy li ma la wax rek <laughs> président daanaka secteur yëpp la laala ah. bon c'est vrai que nii sam mën naa ni collègue enseignants yi aussi ñoom xam nga rek dañoo bari xulo donc chaque année ñoom mën naa ni secteurs yi ñoom ñoo ëpp luñ ciy grève boo xoolee boo amee seetlu donc euh, côté enseignement supérieur président mi ngi ciy teg ay jéego <laughs> donc euh, vraiment mooy li may wax rek secteur yëpp day am ay ay ay ay ñaxtu quoi mais nag président wax na ci secteur yëpp. am nañu aussi ñi nga xamante ne ci côté éducation. ñu ngi ko doon wax naan euh, président ñu ngi ko doon xaar pour mu wax ci discours am. ci wàllum éducation sexuelle bi ñu wax ni. Euh, amee nañu yéene daal di koy dugal ci biir euh, réew mi lan moo ci sa xalaat. waaw foofu dañ ciy féliciter président. parce que dafa rassurer sénégalais. parce que coow li bari woon na. mais président rappelé leen ni moom wax na ko premier ministre Canada bi. président Barack Obama aussi bi mu ñëwee. wax na ko ko. parce que dañ ko posé question mun leen moom tant que mi ngi fi loolu kenn du ko fi daganal donc nag en tant que chef de l'État di le président de tous les Sénégalais loolu bu ko waxee ñun ñëpp dañ cee war a am xel mu dal. xam nga bu fekkoon koo xam ni sax danaan la non pare gu ñu ñu ngi xool ak yooyu mais koo xam ne daf ni la moom tant que mi ngi fi loolu kenn du ko fi daganal. donc euh, vraiment Sénégal yëpp war naan am xel mu dal ci loolu. Euh, infrastructure mu mel nii euh, bu ñu xoolee actuellement le président Macky Sall nu muy doxalee ci gouvernement bi mun na jàpp ni côté jumtuwaay d' infrastructure bokk na ci ay priorité am ndax ay chantier yi nga xamante ni engagé na ko ci biir réew mi. waaw boo xoolee côté infrastructure sax lim ci lim ci wax dafa bari parce que annoncé na ay projet yu bari ak projet yoo xam ni jot na jàll ba pare. boo xoolee en deux mille vingt déjà. on a euh, état du Sénégal def na quatre cent vingt cinq kilomètres de de de linéaire mooy tali de piste. en deux mille vingt et président annoncé na autoroute Mbour Fatick Kaolack d'une d'un linéaire de cent kilomètres Thiès Tivaouane Saint-Louis bi cent soixante kilomètres. aussi chemin de fer ku nekk xam na ni chemin de fer dafa am solo ci réew. foofu aussi président annoncé na defaraat chemin de fer Dakar Tamba mu ni da koy réhabilité waat. aussi ci mbirum euh, maritime bi aussi wax na fa ay projet yu am solo notamment projet Bargny Sendou bi parce que ku ne xam na ni port de Dakar actuellement fret bi jaar Sénégal àttanatu ko moo tax président am na ñaari port yoo xam ni ñu ngi koy defar euh, ñu ngi koy defar benn bi mi ngi en cours mooy euh, port vraquier de Bargny bi beneen bi mooy port de ndaayaan bi ngeen gis fan yi bi mu bi mu annoncé parce que Sénégal dafa dafa dafa dafa dafa dafa signé dafa nekk ci dans un cercle restreint dafa signé benn kii bi naan passeport logistique mondial donc loolu ça lui permettra d'avoir euh, benn plateforme maritime et logistique euh, de classe mondiale donc sur le côté maritime bi aussi euh, président annoncé na ci loolu ak travaux de réhabilitation des aéroports régionaux Kaolack Matam Podor Kédougou Tamba donc dans tous les domaines boo xoolee côté infrastructure am na ay jéego yoo xam ni annoncé na ko pour deux mille vingt et mhm. Mhm. mais euh... aussi ñu bëri jàpp ñu ne euh, Sénégal du Dakar rek te boo xoolee euh, boo defee pourcentage yi daanaka infrastructure yooyu yëpp euh, pratiquement lu ci ëpp Dakar la ñu gën a miser. non du Dakar kese parce que <coughs> autorité yi ma la wax Mbour Fatick Kaolack kooku du Dakar Thiès tiwaawan Saint-Louis du Dakar Port de Ndayane du Dakar aussi boo jëlee de PUDC piste yi muy defar tey jii boo demee ci àll bi man mi nekkoon Kédougou xam naa waa PUDC lu mu leen jariñ parce que tey jii man dama doom euh, parfois sax ñoo leen doom yóbbaale suñ oto yi ah. dangay gis femme boo xam ne day dox ay dix kilomètres di dem ci toolam PUDC ñëw defal leen ay piste rurale donc loolu ci àll bi la donc président ñi naan dakaar la yam rek mooy ñi yam dakaar mais boo génnee ci àll bi di nga xam ne côté infrastructure mu ngi ciy def ay jéego yu am solo. TER bi bi yoon nag euh, on pense que peut-être que dat bi dina dina mën a mujj nekk euh, une bonne date euh, pour que TER bi mun a commencer ay yëngu-yëngum nee na 2021 incha allah. ah waaw nan nan nan jàpp li mu wax rek deux mille ñu ngi ci deux mille vingt et xam nga président ñun ñëpp moo ñu gën a renseigné donc bu nee deux mille vingt bi dina daw rek nan jàpp ni deux mille vingt et un incha allah nin eh, dinañ dinañ dégg cornet otara parce que Sénégal yi daal dañoo dafa mel ni fu mu toll dañoo xaw a xaddi parce que joxe nañ fi ay dates yu bëri yi nga ne euh, terre bi daal ba léegi mu ngi à terre comme ni ñu koy waxee waaw mais projet yi yëpp noonu lay demee ah. xam nga projet parfois day am ay retard donc euh, entreprise bi gañe projet bi dina am date de livraison mais parfois am na ay aléas yoo xam ni ay imprévu lay doon donc yooyu bu amee rek dina xaw a retardé projet bi tuuti mais comme ñu ngi ci deux mille vingt et rek te président nee na 2021 la affaire di démarrer dañuy sant yàlla rek xam ni léegi ñu gis ko. beneen jafe-jafe ci réew mi di l'emploi des jeunes le président buñ ko déggee mu wax keroog def na ci ay jéego yu am solo mais dafay mel ni bu ñu xoolee wala bu ñu gisee réew mi ni mu doxee ak jeunesse bi surtout ak li fi jot a xew ci émigration clandestine bi ñu bëri ci ñàkkum xëy lañ ko daal di tënk lan moo waral solo yow lu mel noonu par rapport ak le président bu ñu ko déggee mu wax ak effort na ko ci côté emploi. waaw côté yu bëree bare bari parce que xam nga aussi état mënta recruter ñëpp ndaw yëpp mënuñ leen jox liggéey mais ay mécanisme lay teg yoo xam ni ndaw yi buñ ci jaaree danan am liggéey tey jii boo jëlee structure bu mel ni DER xam ni dañ ko créer pour l'emploi des jeunes et des femmes yow tey jii Mamadou Fall boo amee sa benn projet mën nga ko mën nañ la ko tënkal ci këyit nga yóbbu DER ñu financé la femmes yi mën nañ ko def mu jël ANPEJ même chose aussi fan yii rek mu ngi créer PAVI mooy projet euh, d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales d'un montant de 74 milliards parce que bailleurs yi euh, DER bi mën na ni DER bi euh, am nañ ci mbégte moo tax ñu injecté waat 74 milliards pour créer PAVI boobu aussi pour les écoles de formation boo xoolee lu mel ni ONFP président aussi da ko créer pour gars yi di fa dem di jàng euh, ay métiers yu ndaw ndawaan yi. parce que ñëpp mënuñoo réussir ndoro dem egg université. aussi état mënta recruter ndoo ñëpp. moo tax mu créer ay mécanismes yoo xam ni day booster loto emploi maanaam utal sa bopp liggéey parce que tey jii problème mu emploi du Sénégal kese monde bi yëpp ko am. problème mu Covid bi ñëw xam ni économie yu bari yu ci bari euh, monde bi ndërmeelu na donc foofu damay ñaax jeunes yi rek. ñu jéem a entreprendre parce que tey ji jeune boo jàngee ba yenn niveau yi waratoo xaar sax état di la jox liggéey mais li nga jot jàng mën nga ko utiliser dem xooli lu mel ni DER wala ANPEJ wala FONGIP yooyu yëpp nga xool waxtaan ak ñoom ñu xool yan projet lan la mën a accompagner nga liggéey ba pare joxe waale liggéey ok mais tamit euh, ñu bëri jàpp nañu ne xëy na amaan agence yi nga xamante ne ñu ngi koy créer bëri na trop regrouper leen mu doon benn bu am doole bi nga xamante ne peut-être dina ëpp njariñ ndax jàppoon ni aussi euh, loolu moo doon gën a baax waaw non agence yi nag euh, xam nga ñoom ñëpp li leen bokkuñu li leen tax a jóg parce que ñii utal ndaw ñi liggéey ak jigéen ñi ñoo leen tax a jóg ñii utal sénégalais ak âge boo mën a am mën nañ la utal liggéey ñii formation moo leen tax a jóg comme ay ONFPT 3FPT et cetera et donc ñoom ñëpp bokkuñu vocation donc euh, regroupement mën na am mais ce sera un peu difficile mais nag euh, jeunes yi foofu mën nañ di dugg parce que aujourd'hui avec le numérique boo yoree sa portable dugg Google tapé DER wala nga tapé ANPEJ di nga gis li ñuy def lépp nga sol sa dàll dem ba foofu toog ni leen ah man de jeune laa bon jàng naa ba terminal wala jàng naa ba BFM arrêté dama bëgg a liggéey projet poulailler laa bëgg def wala projet couture et cetera ñu accompagner la. mais DER ak ANPEJ par exemple tey ak euh, jamono ji fu mu toll. Euh, boole leen doon noon gën pour rationaliser un peu suñu économie réew wala. waaw loolu lépp xam nga waxtaan la rek. Hmm. bu président xoolee ni loolu lépp war na leen boole man je ne vois la difficulté ñu boole leen ñoom parce que aussi ak économie bi fi mu toll nii xam ne Sénégal relance économique la ñuy wax lépp loo xam ne mën nañ ko def pour euh, rationaliser les dépenses publiques rek état da koy def. leneen li nga xamante ne état bi wax na ko ci te ñu jàpp ne tey euh, monde bi fu mu toll loolu waroon naa mën a mëte fépp moo di wàllum euh, énergie wax na ko li nga xamante ne moom mooy ñëpp mën a fexe ba jot ci courant gi ci Sénégal loolu aussi bokk na ci ay yéenam bokk na ci mbébétam. effort yi par rapport ak lampadaires yi ak yeneen ak yeneen Sénégal ci fu mu toll ndax jàpp nga ne retard bi dafa xaw a large wala def nañ ci ay jéego. def nañ ci ay jéego yu bëree bëri. parce que bu njëkk boo xoolee village yu ci bari dañoo amoon problème courant ak ndox. PUDC bi réglé na ci lu bëree bari président Macky Sall aussi bi mu ñëwee ak euh, projet lampadaire yi mu initié au niveau des villages réglé na ci lu baree bari déjà boo xoolee deux mille vingt rek on a implanté plus de cinquante mille lampadaires. te nee na deux mille vingt euh, deux mille vingt et un bi euh, on prévoit d' cent mille lampadaires dans les villages donc. loolu mi ngi ciy def ay jéego yu am solo. aussi annoncé na projet de d'une centrale électrique de gaz de trois cent mégawatts yi nga xam ne à capitaux entièrement sénégalais. loolu dafa am solo. parce que centrale gaz boo xam ne actionnaire yëpp sénégalais la ñuy doon loolu day répondre sax ci continue locale bi loi de di continue locale bu ñu voté fan yi donc. côté énergie mi ngi ciy def jéego léegi nag Sénégal on prévoit d'exploiter le pétrole et le gaz te xam nañ pétrole solo yi mu am ci réew tey jii pétrole boo ko comment ex euh, commencé exploiter ak gaz day impact ci facture énergétique bi donc problème yu baree bare état mën na fa jaar régler ko. Mhm. dama ko mënul développer ci émission bi. mais xam naa ñu pétrole ak gaz dafa yi mën a def daal. bari na par rapport ak li nga xamante ni moom moo jëm ci euh, cadre du président. Euh, bu ñu ko munee tënk ci discours bi dafa ne fast track travail et résultat. yow yaa ngi sentir ne yëf yaa ngi bougé ci réew mi wala. waaw waaw yow sentiroo ko. non dama lay laaj yow question la <laughs> c' est une question. <laughs> non yëf yaa ngi yëf yaa ngi bougé xam nga aussi kenn mënta def lépp ci benn at. mais nag boo xoolee li ma jot wax lépp ci secteur yëpp waa ci secteur santé énergie infrastructure. jéego jéego yi ñu ngi dox. tey jii boo demee àll ak PUDC lim jot a def nga laaj villageois yi ndax président affaire yi ñu ngi dox ak léegi. bourse de sécurité familiale yi aussi tey jii boo demee àll ba nga xam ni ñoom amal na leen solo. ak yeneen secteur mën nañ ko jël secteur par secteur tey jii ñu def ci euh, benn exposé nga xam ne affaire yi mi ngi dox. Mhm. mais fast track bi nga yaakaar ni euh, poste premier ministre bu mu dindi amu ci lu ci gàllankoor yow la moo ci saxalaat xalaat. waaw une politique. question boobu keroog tontu na ci. parce que nee na la premier ministre amul benn pouvoir. parce que premier ministre aussi mënta def lu ko président santul donc première ministre aussi même boo ko indiwaatee lépp lu muy def da waxtaan ak président donc président décision finale bi boo xool moom moo ko yor donc euh, pour le moment bon man je ne vois pas que ni impacté na mais nag bu fekkee mën na gën a baral liggéey bi kooku bon président peut-être euh, mën na cee indi ay yeneen yow daal yëf ya daal nu mu mel ni jàpp nga ne mën na ci continuer comme ça euh, sans que mu ñëwaat encore pour le moment wala voilà? bi ah waaw man de bi nu ko dindeek léegi moom je sens que ni affaire yi ñu ngi dox. Mm-hmm. léegi nag avec Covid bi mu nekk xam nga aussi état lu mu mën a yaxanal da ko yaxanalaat. parce que premier ministre boo ko indiwaatee institution euh, premier ministre boo ko indiwaatee. ak personnel bi ci war a ànd ak conseil et tout ça kooku ak war a votel ko budget ay charge yu lourd la ci état bi moo tax aussi loolu foog état ak euh, le président étudier ko ak économiste si pour xool opportunité indiwaat primature wala déet. le président de la république Macky Sall daanaka at bu mu def discours rek mu am li ci tukkee ci waxtaan ci troisième mandat bi. troisième mandat bi li mu waxoon li jiitu euh, discours am bu daaw bi moo di ne woon euh, moom dafa waxoon mu leer ci bopp ñëpp ni troisième mandat bi daal bokkatu ci. mu ñëw euh, ci discours daaw bi ñu laajal ko mu ne du wax waaw du wax déet ren mu ñëw ne du ci waxaat sa commentaire ci loolu mooy lan. Ah, pour ci waxaat. moom nee na du ci waxaat kon kay jaruñu ci waxaat parce que olof Njaay def ni mag du du du sangu nga koy yër xam nga président euh, waxoon na ci waxaat ci waxaat ci mais jusqu'à président débat euh, jusqu'à présent débat bi sa continue. mais dafa leeru nag ci bopp askan wi moo tax peut-être débat bi di continuer. waaw nee xam nga nee na moom bu date bi jotee dina ci wax léegi nag bu date ba jotee moom dina ci wax <laughs> ñun man nii nag bon kooku c'est personnel. bu doom sama sago nag dana def. ñetteel ba ñeenteel ba juróomeel mandat. ah bon ah waaw que président Macky Sall ku gis li muy li muy li muy li muy li muy liggéey ci réew mi. def un projet Sénégal émergent ba deux mille trente cinq. kooku tey jii changement bu amee rek risque la parce que beneen président bu ñëw en général mën na dindi programme président Macky Sall bi mu fi tegoon mooy PSE bi indi leneen lu bees. te loolu mën na am euh, des effets négatifs ci euh, croissance su dëkk bi. léegi nag moom nee na dina ci wax. ah ñun am nañ conseil contitionnel waaye man dama la kooku c'est personnel bu room sama sago. Mhm. bu ko ko yoon mayee mu jël. mais bu ñu sukkandikoo ci suñu chartum réew ci suñu constitution euh, yow euh, jàngat bi nga ci am ci constitution bi est-ce que euh, war na mën a laaj beneen mandat wala fii la yem ci sa jàngat yow ci li ah, ci constitution bi du ma constitutionnaliste ingénieur géologue la waaye nag dama la lu ko constitution bi bu ñu ko am da koy def man je vois pas mu bañ koo def parce que bon constitutionnaliste yi mën naa ni les avis son son sont partagés interprétation la. vous savez aussi lire entre les lignes. Mhm. Euh, français lañ bind suñu constitution. Mhm. yow bi nga xoolee nga liir mhm. yow ban impression nga am balaa sax ñuy interpréter yow da nga jàpp ne actuellement ak constitution bi li mu wax le président am na droit laajaat wala amul droit. non mooy li ma la wax rek xam nga euh, constitution bi. man duma ma mais damay déglu nag constitutionnaliste yi ñuy wax déglu naa ma Madiambal Diagne déglu naa maître Babou ñoom li wax leer nan nee nañ deux mandats successifs lan wax bon te premier mandat bi bokk ci mooy mandat de sept ans bi parce que loi bi rétroactive donc su nee deux mois euh, deux mandats successifs deux mandats de cinq ans yi la ñuy wax ñoom loolu lañ expliqué. am ñeneen ñu expliqué le contraire aussi. am ñeneen ñu expliquer la contraire. ne mandat ko muy cinq ko muy sept mandat la. léegi nag man mënumaa départager parce que duma ma constitutionnaliste. mais dama ni la président bu fekkee date ba jot na mu war cee wax. bu ko yoon joxee droit mu présenté wu ni ko mën ngaa def troisième mandat ñun on sera derrière lui dañ koy accompagner mu def ko. le président euh, xalaat bu mu amee nii jamono ji ak gis-gis bi amee woo ko woon yàlla de cela trois ans ci ginnaaw. parce que boobu defoon demoon na ci ay plateau mu leeral ci bopp ñëpp ne comme quoi que. en 2019 bu ñu ko falaatee. mooy nekk son deuxième euh, son second mandat et il faudra partir mu ñëwaat daaw mu wax ni euh, du wax oui du wax déet parce que bu ko waxee gouvernement bi lay lay sóoraale ni dina am ñi nga xamante ne du ñu liggéey loolu la indi comme justification. donc a leeral débat mais ne du ci waxaat day xaar ba le moment venu est-ce que entre temps euh, le président Macky nekkut di xaw a rocceeku ci euh, euh, en tout cas xalaat boobu noonu ndax yow jàngatoo ci loolu. ci ak doom naa la ko léegi xam nga président Macky Sall man li nekk ci boppam mënuma koo xam. parce que nee naa la léegi olof nee na mag du sangu nga koy yër. noo dañuy jàngat rek. waa léegi doxalin ba la ñuy jàngat. voilà léegi moom bon même bu ci waxoon taxul débat bi fay. parce que Sénégal xam nga ñoom. <laughs> chaque jour maj sa mbokk dañu média bi dañuy alimenter débat moo leen neex président bu taxawoon tey jii nii pare naa ci gars yi dañ naan pareegu ci parce que mi ngi ibbi gouvernement bi mi ngi teg ay acte xam nga bu ni woon damay def coow li gën a bari donc <laughs> moom kay euh, mi ngi liggéey actuellement nan ko may mu liggéey rek ba date ba jot parce que instant bi per nag période liggéey la mu ngi jógee ci mille 2019 ay élection léegi nag dafa am période camp euh, période politique am période liggéey actuellement ñi ngi période liggéey nan liggéey rek ba dat ba jot comme moom mu wax ci taxul coow li fay léegi nag nan liggéey ba ba ba ba dat ba jot rek mu door a wax Ibra troisième mandat bi par rapport ak li nga xamante ne moom moo jëm ci ci doxalin yi comme ni ñu koy waxee lu tax mu xaw a lëndëm moo ne yow ñi nga xamante ni ñoom nga àndal ci biir parti bi constat la xamuñu ndax tombé moo waral gaaf xamuñu nu mu demee mais képp ku ci ci wax ne moom amut sañ-sañ laaj ko rek gis nañu tey fu ñu mujj te ñi am nañu xamante ni wax nañ ci mandat bi mais bu ñu waxee ni le président am na sañ-sañ laajaat ko mais ñooñu dara fekku leen ci ndax yow da nga jàpp ne loolu tombé moo waral gaaf wala sanction la non du sanction li nga njëkk a wax la rek tombé ah. parce que am na ñoo xam ne tey jii dañ leen war a ñu ni xaaral mu profitoo dem ci média yi rek ni président amul droit def troisième mandat comme quoi comme ça buñ ma dàqee sénégalais yi dañ ni li ma ko wax a tax donc tombee waral ay gaaf <laughs> am na ñoo xam ne aussi wax nañ ko mais fekk na boobu président amoon na idée jël leen ci wetam donc euh, bon je pense que loolu taxul daal. flagrant wul mais bëri nañu de ñi nga xamante ne ci euh, cadre boobu lañ leen dugal xam nga bu dee benn la sa wala ñaar ñu ne peut-être euh, tombé war a li mais bu bu xawee bëri tamit est-ce que du du xaw a indi lëndëm lëndëm ci bopp askan wi. non du indi benn lëndëm lëndëm. moom kay ku bëgg mu indi lëndëm lëndëm sa bopp rek la koy indi. parce que bi ci mujj mooy ban maître musaa Diop. maître Moussa Diop. waaw mu ngi ci biir. waaw euh, ki nga xamante moom mooy Sori Kaba. waaw mu ngi ci biir. Hmm. ki nga xamante moom mooy Aminata Touré. Hmm. mu ngi ci biir ak ñeneen ñi xam ne ñu ngi leen prêter ay ambition présidentielle peut-être ñëwoon ci biir ku mel ni Amadou Ba ku mel ni euh, ñoom Aly Ngouille Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen list baa ngi bëri de wala xam nga ñoom ñëpp sax bon am na ñu nga lim ñu ci bëri ñoo xam ne waxuñu ko léegi nag euh, peut-être ñooñu président bi mu leen di wàcc jëlo prévoir woon na leen pour wàcce leen mooy li ma la wax rek des fois da nga yëg ni président bëgg na laa wàcce nga ni xaaral ma daw ci média yi ni président amul droit def troisième mandat bon ñoom am na ñoo xam ne mooy de pression lañ koy jëlee ni bu ma ko waxee président du ma dàq. parce que bu ma dàqee sénégalais dinañ ni li ma wax looloo tax mu dàq ma mais président moom c'est quelqu'un qui est serein bu la waree dàq dalay teggi bu la waree fal dalay fal même boo am na droit def troisième mandat yëpp dana la fal bu la waree teggi nag dalay teggi parce que remaniement ñi ngi fi ponkal yi ngi fi tudd ñëpp ñoom Amadou Ba que ça soit Aly Ngouille Mimi Touré ñoo ñëpp. bon peut-être euh, moom lu tax mu wàcc leen moom moo ko xam. parce que ñoom aussi bi mu leen soxlaa jël na leen. mi ngi mel ni nga yor sa école sa sa sa équipe de foot. entraîneur bi parfois da ngay gis jour bu aay mu génne ko nga ni lu tax mu génne ko. fekk boobu moom am na leneen lu mu gis mais yow mu nekk ci biti doo ko mën a gis. te président mënta wax lépp. xam nga état aussi kenn du ko gérer noonu munoo munoo munoo wax lépp mu fës. donc moom c'est vrai que ne wàcce na leen mais bu leen bëggee jëlaat peut-être dina leen jëlaat. yow da nga bokk ci ñi nga xamante ne xëy na ñu ngi théoriser ñu jëlee fi ci réew mi wala ci Sénégal la limitation des mandats yow ci ñooñu nga bokk. non man euh, limitation des mandats dama ko mosul gëm. da ko contre. waaw waaw pour man c'est antidémocratique. parce que tey jii boo jëlee de pays comme Allemagne. wala ay Belgique ak yooyu ñoom ay limitation des mandats amu fa. donc bun ni rek. dans le monde gars yi ñu ngi prôné loolu que ñëpp dañoo war a def deux mandats ñun Afrique dañ ko war a def te xamuñu lan moo tax. xam nga tey jii boo jëlee les pays européens jël les grandes puissances ñooñu tabax nañ seen dëkk ba pare président bu ñëw mën na def deux mandats dem mais fii en Afrique dañoo toll ci foo xam ni dañoo nekk di tabax dëkk bi tey jii président bu defee un programme comme le PSE euh, prévoir une émergence d'ici deux mille trente cinq mais kooku tey jii li doom yoon sax mu dem ba deux mille trente cinq mais comme mënta dem ba deux mille trente cinq nag mu mën a dem ba fa mu mën a yem rek keneen ñu ngi naan nag ko ko koy remplacer nekk koo xam ni ci partem la ne pour mën a eggale œuvre bi mu bi bi bi bi bi mu bëgg. scénario bi mooy lii ko daloon. ci ginnaaw njortu nañu ne moo ko jëlaat moom le président Macky mooy ñu dem ba ci veyu 2024 euh, mu ne léegi comme coow li bëri na nañu jox mbir mi conseil constitutionnel mu tranché mm. conseil constitutionnel tranché ne que euh, am na droit laajaat beneen mandat su ko defee moom le président Macky Sall lii nga xamante moo koy dal naka lañ koy mën a qualifier par rapport ak euh, njiit bi nga xamante ne dafay wax waxeet c'est-à-dire balaa ñu koy fal mm. waxoon na ne bu buñ ko falee ci boppu réew mi du def sept ans lay def ñu dem ba ci biir coow li bëri mu jox waa conseil constitutionnel ñu tranché xam nga dèjà kàddoom jiitu na ko balaa conseil constitutionnel di wax mais bii tamit li ko nar a daal mooy bu fekkente ne dem nañu ba ñu jox ko conseil constitutionnel ñu valider ni ko moom war na mën a laajaat mais dans ce cas kàddoom jiitu na ko parce que wax na ko euh, ci fépp ne en 2019 mooy nekk son second mandat et il faudra partir dans ce cas encore dafay andiwaat encore beneen wax waxeet loolu euh, naka lañ koy juger alors ci njiit scénario bi su fekkee am na laa wax. foofu fi ñu koy teg rek mooy président c'est vrai que nii mooy suñ njiit la mais nit la comme ñëpp amul benn nit bu parfait kooku suñu boroom rek moo ko am. donc moom yéeneem la rek lay wax yéeneem lay wax mais nag bu demee ba ci biir yoon wan ni ko yow li nga wax du dina am humilité parce que tey jii yow <laughs> parfois mën naa ni dama lay jox benn exemple bu ndaw koor gi war a ñëw nga ni fas yéene naa woor weer bi yëpp mais wóorul la ndax di nga woor weer bi yëpp de parce que ci biir weer bi mën nga feebar mën nga am yeneen gàllankoor doo woor donc c'est la même chose. mais bu boobaa day nekk indépendant de ma volonté mais lii nag le président moo koy wax ci volonté am lay nekk. waaw mais moom aussi bu fekkee yoon daf koo tënk. ni ko li nga li nga li nga wax du loolu moom it c'est indépendant de sa volonté. <laughs> bu ko conseil constitutionnel tranché ni ko yow am nga droit def troisième mandat mais dans ce cas ñun ñu ànd ak moom ak sénégalais yi sax. mais moom c'est le c'est le premier gardien de la constitution non. te yaakaar nañ ne aussi un président ne dira pas du n'importe quoi sur sa constitution wax na ko ci Sénégal wax na ko ci biti réew aussi conseil ku leen gën a xam constitution xam nga le président c'est le gardien de la constitution mais conseil constitutionnel kenn gënu leen xam constitution moo tax ma ni la bu conseil constitutionnel tranché. président comme mooy gardien de la constitution dafa war a tënku ci loolu mais bu li li garaaw kay mooy conseil constitutionnel tranché président ni duma ko def dans ce cas la du nekkati sax gardien de la constitution. mais comme moom wax na il faudra partir kay il faudra partir rek. waaw mais xam nga wax rek. <laughs> mooy li ma la wax léegi yéena rek la wax la wax. bu fekkee conseil constitutionnel tënk na ko ni ko da nga war a dem day dem loolu. président Macky Sall ku nekk xam na ni moom du def loo xam ni day salfaañi ak yoon. léegi Ibra yéen ñi di euh, xalaat euh, personnellement ne le président Macky war na mën a laajaat beneen mandat euh, ak li nga xamante ne xewoon na fi en 2012 est-ce que yéen a ngi xalaat aussi conséquences yu mu war a jural réew mi tey bu ñu demee ba le président Macky ñu ne dafay war laajaat encore beneen mandat ci réew mi. bon conséquences yi <laughs> yan conséquences. par rapport ak li mu war a jur ci réew mi ci fitna. Ah, opposant yi ñoo ñoo ñoo ñoo nekk ci rajo di wax. mais ak ñenn ci askan wi. non askan bi <laughs> askan bi c'est relatif ah. non dama ne ñenn ci askan wi wax ma ñëpp. dama ne ñenn ci askan wi hmm. mooy activiste yi ngay gis ak ñooñu. mais nag peuple bi am na peuple bi ñoo xam ne ñi ngi seen saal toog li naan la masse silencieuse. mais ñooñu doo leen dégg ñu wax. parce que président bu fekkee loo xam ne yoon moo ko ko may. man je vois pas <laughs> mu am benn jafe-jafe. bu ko yoon mayul nag mu forcer dans ce foofu la coow li ne. waaw yow personnellement loo jàpp yoon may na ko wala mayu ko ko xam naa ne doo juriste xam naa ne doo constitutionnaliste mais aussi vous savez lire entre les lignes vous avez lu la constitution li mu ci wax yow lan nga jàpp yow personnellement man kay li ma la wax laa lay waxaat rek <laughs> mënuma cee liir dara ah man moom waaw sama yéene laa wax mais nag li constitution dafa constitution dafa xóot loolu interprétation la dañ leen koy bàyyi ak ñoom constitution dafa xóot waay léegi nag man li ma ci xalaat moom mooy bu ko ko yoon mayee mu def ko loolu moom sama xalaat fa la yam mais quant à lire entre les lignes di xool constitution beeg yooyu bu ma ko waxee dëgër fi ta tax ma wax ko rek waaye mën na bañ a doon loolu. pourtant français lañ ko bindee de. waaw français lañ ko bind moo tax ñii interpréter ko ñii. Hmm. ñii waxe ko nële. <laughs> français lañ ko bindee Barthélemy Dias opposant la. lu mu la wax nee na la ay français yu leer lan wax ci constitution bi président am na droit def troisième mandat Barthélemy moo ko wax. ah bon te ku ah bien sûr demal seetaan YouTube. Hmm. te ku nekk xam na ni Barthélemy ni ni muy opposé woo farouchement au président de la république mais am na au moins humilité ni constitution bi li ñu ci bind c'est du français comme am ñeneen aussi ñi nga xamante ni ñu ngi ci biir APR waaw ci mouvance présidentielle bi yu wax ne constitution bi lu mu wax ak buñ ci sukkandikoo le président Macky Sall amul droit laaj troisième mandat comme ñan Aminata Touré ma wax na ko waaw mooy li ma la wax rek ku nekk am nga droit wax sa xarit xam nga Aminata Touré ñoom maître Moussa Diop aussi kooku avocat wax na ko waaw waaw maître Moussa Diop bon <laughs> mën naa ne il est un peu. Sori aussi ci APR la nekk wax na ko. waaw mooy mooy wan ni APR am na démocratie. léegi ñii bu ñu waxee lii ñii wax la la mais ñoo ñëpp dañ leen dàkk tamit bu dee démocratie la aussi bu tax mënuñu leen bàyyi ci poste yi ñu nekkoon. non dafa da mooy li ma la waxee sànq rek. tombee mm. waral ay gaaf. waaw bu leen dàqee it président xam nga moom moo am pouvoir boobu. Mm. nommé au pouvoir civil et militaire. ku mu war a fal da lay fal. ku mu bëgg dàq aussi dina la dàq parce que parti ak réew du benn moom ni muy gérer partem ak ni muy gérer réew du benn ça ne veut pas dire que ni APR nga nekk rek da nga signé contrat ci gouvernement bi éternellement kenn du la dàq président bu gisee ni mën na la changer wala bi mu la bu la changé mën na fa teg keneen koo xam ne mooy gën a doxal affaire yi wala mu baral ko da koy def. Euh, gouvernement bi mu yaatal mu def benn gouvernement ñëw mu woo yenn ci ay opposants ñu dugg ci biir euh, nguur gi ban jàngat nga ciy def. waaw loolu dañ koy dañ koy dañ koy rafetlu rek parce que sànq maa ngi koy wax bi may commencé ni monde bi fu mu toll nii dafa jaxasoo boo xoolee des puissances comme les États-Unis pandémie bi dafa laal seen croissance bu baax France même chose. ak euh, itali donc pays africains yi aussi ñoom la mbas bi nar a gën a sonal parce que Afrique boo xoolee ñun li ñuy li ñuy li ñuy lekk ak li ñuy consommer yëpp dañ koy jéggaani dañ koy importer mu ñëw duñ ko defar donc tey ji bu ñu mbas mi euh, sonalee aussi war nañ mën a booloo mu am benn synergie benn coalition de telle sorte que dinañ mën a liggéey Sénégal moo tax sa Seck wax na ko bi muy dugg si nee na moom amul droit toog di seetaan amul droit toog di seetaan parce que gis na jafe-jafe yi c'est vrai que c'était un opposant moo jëloon deuxième mais nag bu gisee ni moom mën na apporter sa pierre à l'édifice aussi mu def ko mook Omar Sarr dañ koy rafetlu Euh, mais aussi am na euh, benn responsable APR bu waxoon ni euh, dialogue national bi sa finalité c'est d'ouvrir le gouvernement aux opposants tey mu mel nii le président Macky Sall bu mu doon def dialogue bi peut-être lii kese la ci doon séntu mais lii bu mu amee aussi gis nañ ne dialogue bi avancé tul le président Famara Ibrahima Sagna ak li nga xam ne xew na ci ñu ñu ngi wax naan dafa démissionné ñu ñu ngi wax naan nekkatu fa noo ko jàngatee. waaw dialogue bi mais bon mi ngi continuer parce que xam nga bi ñu jugee élection coow li bare woon na ci fichier électoral bi tout ça. léegi nag président dajale woon leen ñoom ñëpp ñu nekk di ci xalaat parti yu bari bokkoon nañ ci ah ban je pense que PDS daal ak quelques partis yu ndaw ñoo ci bokkul mais à part ça yeneen parti yëpp ñu woon ci dialogue bi di waxtaan bon c'est vrai que ni ibbi nañ gouvernement bi mais teewul waxtaan bi mi ngi continuer waxtaan bi mi ngi continuer te loolu aussi président ni mu koy defee ci politique bi la koy defee ci yeneen secteurs yëpp yeneen secteurs yëpp da ciy da ciy da ciy da ciy waxtaan ak ay nit di ci di leen ci laaj seen i xalaat. en tant que responsable politique. Euh, ànd bi Idriss Seck ànd ak président Macky Sall ban jàngat nga ci def yow. waaw rafetlu ko rek. xam nga bu nee mburoog soow. mburoog soow kay ku ne xam na ni day neex <laughs> loolu liñ ci jàngat rek. Hmm. mooy dañ koy dan dañ koy rafetlu parce que président Idrissa Seck. kenn mënu koo génne ci politique gu Sénégal. tey jii bu ma la waxoon limal ma cinq yoo xam ne mën na nekk président fii ci Sénégal boo nee Macky Sall. boo moytuwul Idrissa nga ciy teg door cee teg keneen la preuve sax ci élection présidentielle yi moo jël deuxième donc ak xam-xamam loolu moom ñëpp reconnaître na ni Idi boroom xam-xam la donc moom li mu amoon ci xam-xam ak programme bu ñëwee président ni ko conseil économique et social laa lay teg social et environnemental nga ma ngay xalaat di ma jox mais kooku Sénégal moo ciy bénéficié wu moo tax président euh, sa Seck dugg seem dafa dafa dafa am solo dañ cee bëgg trop waaw. Ah, sa Seck ci boppam euh, bu mu ñëwee déclaration wala discours bu mu njëkk euh, teg ci fi nga xamante moom mooy euh, conseil économique social environnemental junj na 2035 ànd bi am na ñi nga xamante ne jàpp nañu ne munta wéy am ñu nga xamante ni jàpp nañu ne mënees naa continuer politiquement doxalin sa Seck ndax jàpp nga ne moom ak le président Macky Sall ànd bi man war naa mën a yàgg. Ah, parce que aussi président Idrissa Seck bi muy dugg wax na ko nee na moom xam na jafe-jafe réew mi fi mu toll. dafa ñëw pour euh, jàppale président Macky Sall mu euh, génne ko ci lool donc ñoom ñaar seen ànd mën na yàgg d'autant plus que ni xame bu yàgg la xam nga ñoom ñaar aussi temps PDS la woon ba tey donc président Macky kenn gënu koo xam président Idrissa. vice versa président Idrissa aussi kenn gënu koo xam le président Macky Sall donc nag président Idi bu ñëwee ba ni ñoom ñaar seen ànd mburoog soow la mburoog soow kay xam nga ni dana yàgg nag. Hmm. waaw. mbaa mburoog soow bu xasoo ba jaxasoo kay. waaw munoo leen tàqale. mburoog soow moomu noonu ba euh, présidentielle 2024 yi di ko xajamal. non man xalaatuma scénario boobu xam nga pré euh, Sénégal aussi ñëpp ay borom xam-xam la buñ duggee ci mbirum politique ñëpp ay analyste la ñuy doon. tey jii bu Sénégal doon football ñëpp ay entraîneur la ñuy doon làmb bu amee <laughs> ñëpp doon ay coach làmb donc euh, ouverture am na Idrissa dugg na bon ku nekk di nga joxe sa xalaat mais kanta teg ay deal bu mag yi mënatul idi kii bon loolu moom ku la ci wax dara rek dëgër fit la parce que ñoom ñaar aussi bi ñuy waxtaan mën naa ni kenn <laughs> fekkewu ko donc ku ñëw ni la noo Macky danaan bu mënatul Idrissa lay dugal wala dañuy dil ak yooyu yëpp dëgër fit la rek waaye président Macky Sall moom wax cee kenn loo dara. Mhm. mais kaddu Idrissa Seck boobu noonu 2035 boobu noonu am nañu jàpp ne c'est pas gratuit de waroon naa mën a yem ci discours am rek mais lu tax muy naan objectif wala direction 2035. waaw émergence bee tax parce que xam nga président Macky Sall aussi PSE la wax. Mhm. te PSE dafa prévoir euh, une émergence euh, du Sénégal en 2035. donc nag euh, ñun aussi mouvance bi bëgg nañoo yàgg toog fii nag ba deux mille cinq parce que bu dul Macky Sall it mouvance bi day continuer rek ba deux mille trente cinq ba Sénégal émergent bu gars yi nee ñu dolli nag ñu dolliwaat. ñu ñëw ci Grand Yoff. Euh, responsable politique APR nga. yaakaar naa ni Grand Yoff fii ngay ngay militer n'est-ce pas euh, APR Grand Yoff taxawaay bi tey foo leen toll échéance yi nga xamante ne euh, ñoo gën a jege jamono ji tembe mooy élection locale yi te ñëpp xam nañu loolu dañ koy waajal waajal gi moo di ay dajaloo ay waxtaan pour xool nag ngeen ci demee euh, est-ce que ci organiser wu yéen waa responsable APR Grand Yoff yi waaw xam nga Grand Yoff nag <laughs> moom laay tooñe sa mbokk yi dafa bëri ñëpp tout le monde est responsable loolu moo tax mu xaw a jaxasoo boo xoolee fii y a il y a plusieurs coordonnateurs mais nag ku nekk yaa ngi waxtaan ak say nit. loolu moo ci am solo. léegi nag euh, bu ñu demee ba échéance war a jot nag moom loolu mooy force APR bon mën nañ retrouver wu nekk benn pour mën a dem ci jongante bi boo xoolee deux 2014 moo gënoon garaaw fopp parce que du temps aadama euh, fay mi ngi fi woon Mimi Touré mi ngi fi woon mu amoon euh, benn kii bu bu bu benn fëggante mbagg bu bu bu metti mais finalement dañoo ànd bon malheureusement gagné nañ ñu mais quand même àndoon nañ bon c'est vrai que ni c'est la même chose parce que actuellement ñi ngi war a dem ci échéance électorale responsable bu nekk yaa ngi waxtaan ak say nit léegi nag bu ñu demee ba mu toll ci bu ñu waree ànd danañ ànd. mais est-ce yow gëm nga ni ànd dina am par rapport ak dispersion yi ni mu demee nii euh, parce que tamit euh, jamono ji dafa am yenn kàngam yi nga xamante ne par rapport ak seen doxalin ak seen position euh, est-ce que yow gëm nga ni ànd dina dina mën a nekk ci ci diggante ñooñu waa xam nga loolu bon mën naa ni lu war a nekk la sax parce que parti bi moom mooy mooy déterminé parti bi bu désigné kenn ni kii mooy candidat gox bi ñëpp dañuy rangé wu donc dina comme quoi que euh, ñoom <laughs> bu fekkente ne du ñoom rek du ñu nag mu doon keneen. waaw ah, mais loolu wax la rek xam nga ku nekk am nga droit aussi am ambition. ma ku nekk mën nga ni dama bëgg je veux être maire et tout ça mais bu président discipline de parti dafa am bu président ne kii mooy suñ candidat ñëpp dañoo war a ranger wu ci ginnaawam parce que ci coalition la nekk. coalition Benno Bokk Yaakaar donc bu buñ waree dem ci élection parti bi mooy désigné. bu parti bi désigné nag ba kii nii euh, kii lan bëgg lan bëgg mu nekk suñ candidat mais discipline dafa parti dafa laaj ñëpp rangé wu jàppale ko ñu ñu ñu jël commune bi parce que APR jusqu'à présent gañeegul commune Grand Yoff te Grand Yoff gis nga jafe-jafe yi dafa bari te est-ce que jàpp nga ni euh, ci élection yi ñuy dem nii ak euh, mbir yi aussi nu muy demee nii ci yéen waa APR yi est que jàpp ngeen ni am ngeen chance encore pour gagner la mairie waaw am nañ chance mais aussi dafa laajaat liggéey bu bu baree bari parce que aussi Grand Yoff mooy li ma ko waxee léegi rek jafe-jafe yi dafa bari dans tous les secteurs boo jël am na ay jafe-jafe donc leader yi fi nekk ak responsable yi aussi il faut ñu dem vers la population di di xool jafe-jafe gars yi. leader APR yi. waaye waaye bien sûr. yaa di sentir sur le terrain wala. bon parfois. parfois parfois bon yaa a ñu may gis def temps en temps sur le terrain mais aussi taxawaay bi des na taxawaay bi des na foog ñu gën a wàcc sur le terrain. di waxtaan ak population bi di xam seeni jafe-jafe parce que Grand Yoff aussi caaxaan gañewu ko caaxaan gañewu ko Grand Yoff bëri na problème am na problème insalubrité am na problème inondation am na problème mu sécurité am na problème mu électrification donc yooyu yëpp foog gars yi dem waxtaan ak population bi xam seeni jafe-jafe pour mën a xam ban programme lañ leen di apporter pour que élection bu amee APR nag mën a toog ci mairie bi pour une première Euh, élection yooyu sax xamuñu kan lañ ciy jëm le président Macky Sall moom la ñuy xaar pour wax ni que telle euh, date la ñu jàpp pour élection locale yooyu noonu mm-hmm. jiixi jaaxa bi euh, ndax jàpp nga ni jaadu na ñu toog ba jamono ji xamuñu kañ lañ dem ci élection locale waa xam nga élection locale moom en général noonu la mës a di demee ci Sénégal élection locale c'est très rare ñu def ko ci date bi ko gars yi fixé léegi nag président wax na ko Euh, xaw ma ministre des collecti kii collectivités territoriales on est en de de de de de de de réviser quoi ñu ngi ci révision kii bi code bi donc loolu tant que pareegul élection mënta am donc nag date bi muy pare nag loolu moom euh, mënuma la ko wax mais xam naa daal euh, bu paree rek élection dina am mm-hmm. mais tamit trois reports le président Macky Sall risque euh, de battre le euh, en tout cas le record de report euh, ci wàllum élection locale est-ce que dina baax ci moom par rapport ak kaddu yu jib ndax Maître El Hadji Diouf parki dem mondial rek dégg nañu ko muy wax naa le président Macky Sall moo wax ci benn réunion ni comme quoi que en tout cas amut yéene pour organiser ay élection waaw bon seetaan naa ko dégg naa ko mais xam nga loolu mënuma cee prononcé wu parce que ci moom laa ko dégg bon aw ma benn kii ni président Macky Sall moo ko wax. mais est-ce que aussi du am raison ci mbir yi ni mu doxee nii parce que tamit boo xoolee maire yi seen mandat war na jar depuis 2019 ba léegi ñu ngi continuer te wax nañu ne euh, date bi ñu jàppoon avant avant dialogue bi moo di ne au plus tard mois de mars 2021 te mois de mars 2021 nu ñu affaire yi demee nii boo moytulee élection du mën a am bu ñu ko reporté waatee aussi ba kañ lay doon. doon moom euh, mënu ma la ko mënu ma la ko wax fu mu toll mais li ma xam rek mooy euh, li ma la wax léegi. ñu ngi nekk ci di réviser code bi léegi nag bu jeexee euh, élection dina am bon fii ba deux mille vingt quatre nag gëw ma ni élection fii vingt deux mille vingt quatre lay am élection élection euh, mairie. ma ni gëw ma ni deux mille vingt quatre lañ koy def comme ni ko maître El Hadj Diouf waxee. ok mais bon ah. je sais que ni c'est bien avant. Mm-hmm. bien avant moom c'est-à-dire yow jàpp nga ne daal avant 2024 élection locale dina am. bien sûr parce que nag yàqamti nan ñun jëlaat Grand Yoff tegaat ko ci loxo mouvance bi. au moins Grand Yoff mën a changé donc vingt 2024 nag dafa xaw sori. est que dina yomb ci yéen Grand Yoff ndax gisoo leen ci ay réalisation li nga xam ne équipe bu bees bi mu ngi koy def. bon équipe bu bees bi moom man defe naa ni seen i seen réalisation bariwul. seen i réalisation bariwul parce que wax naa la léegi ni Grand Yoff problème yi dafa bari jëlal insa insalubrité bi mbalit mi. boo xoolee Grand Yoff mën naa ni euh, ci communes yi gën a kii la bokk. parce que dafa problème mbalit mi ba tey commune bi munu koo régler te mbalit xam nga léegi euh, dafa bëri ay utilisation industrielle ordure lan koy wax boo xoolee sax ordure c'est de l'ordure donc dafa war a nekk opportunité. mais loolu est-ce que du état bi la fekk mu mu jëlee ko ci ci collectivité locale yi mu mu gérer ko maanaam ak UCG est-ce que loolu aussi euh, jurul euh, lu mel ni ci yenn ci ay communes. waaw mais xam nga mooy li may wax rek état bi moo ngi koy gérer mais dama la commune bi aussi. war na am war na am benn projet boo xam ni c'est pour la valorisation des déchets ménagers parce que tey jii euh, mbalit mi mën naa ni commune bi ñoom li ñuy def chaque année rek li ñu ci xalaat mooy set setal raxas euh, defar quartier yi set setal quartier yi tuuri mbalit mais mbalit actuellement am na ñoo xam ne dañ ciy defar énergie biogaz tey jii problème mu électricité Grand Yoff mbalit mi mënoon na ko régler parce que mbalit yi ñu fiy collecté yëpp moo nañ ko transformer en biogaz mu fournir les quartiers de Grand Yoff mbalit mi aussi pavé yi ngay gis gars yi di def mais am na yoo xam ne mbalit dañ ciy def pavé donc quartier Grand Yoff yëpp moom nañ jël mbalit def ci pavé ak yeneen utilisation industrielle yoo xam ne mën na ko def tey jii nga ñëw zone de captage foofu bo moom écologique la parce que canal bi moom boo demee xool ko sax sa yaram day daw lu ne lan fay sànni mais kooku mairie bi defu ci benn jéegu te je pense que les canaux à ciel ouvert kooku mairie bi moo ko war a gérer. aussi boo ñëwee ci affaire inondation yi man gisuma benn benn benn action majeure boo xam ni mairie bi def na ko pour jéem a voilà jàppale population bi ci affaire inondation yi. parce que Grand Yoff ku nekk xam na ni c'est une zone de depression ndox dakaar yu bëri fii lay ñëw maintenant mairie bi aussi parce que mairie yi boo gis ci monde bi aussi euh, dina mën a di wut ay partenaires def ay projet xam nga jéem a développer commune am tuuti tey jii ñun on ne pas accepter lu toll ni Grand Yoff xam ne am na plus de cent soixante douze euh, euh, cent soixante douze établissement établissement scolaire amul euh, bibliothèque communal <laughs> man musuma gis maire bi wax projet <laughs> benn bibliothèque communal te loolu c'est problème te Grand Yoff ku ne xam na ni bëri na ay intellectuel bëri na ay école bëri na ay lycée bëri na préscolaire bëri na élémentaire tey jii boo fi defoon benn bibliothèque gars yi dem fa di uti xam-xam donc daal problème yi je pense que bëri na mais on sent pas la commune ñu jëm ci apporter dara. Mhm. Euh, mais aussi. Euh, à part rond point bi defar de rond bi nekk ci wetu mairie bi boobu de defe naa defar nañ ko moom. waaw boobu moom gis naa ni defar nañ ko booy dee fois fa la ñuy nekk guddi gi di lëmbe daal. Mhm. à part ça aussi euh, côté infrastructure gisoo tamit leneen lu ñu def lu ñu war a rafetlu wala. bon pavé yi pavé yi daal gis naa ko fi te pavé yi sax moom dajagul. pafe yi moom rythme bi sax dafa yéex ni koy defee. donc euh, ñoom daal euh, li ñu leen di ñaanal rek mooy seen mandat gaaw jeex ban abal ñu quoi. Hmm. parce que Grand Yoff dafa war a changer. il est temps nag Grand Yoff changer. Euh, am na aussi ay travaux yu ñu annoncé comme par exemple lii di foyer de jeune bu Grand Yoff bi mais avant cela aussi ci 27 passé bi inauguré nañu maternité bi maternité Grand Yoff 2 bi gis nga ko. waaw gis naa ko gis naa ko loolu moom dañ koy rafetlu. parce que xam nga Grand Yoff aussi ak ni mu Euh, am ay presque cinq cent mille habitants maternité bu nu amee maternité loolu dañ koy dañ koy ku nekk da koy rafetlu mais je pense que rythme bi dafa yéex maternité yi war nan war nan bari war nan bari donc mairie bi daal man je pense que commune bi na mu waroon góor góorlu ko. Mm-hmm. tey jàpp ngeen ni yéen APRIS yéen ay solution bi. ah bien sûr. APRIS kay bu ñëwee Grand Yoff nga xam ne Grand Yoff am na maire. parce que Grand Yoff ba muy Grand Yoff ba tey boo xoolee maire yi fi nekk xalifa ah, ak euh, maire PDS bi fi nekkoon ensuite euh, Madiop ñëw mais amul benn évolution Grand Yoff dafa changé wul Grand Yoff yow boo fi gëjoon vingt ans <laughs> à l'arrière nga ñëwaat Grand Yoff xool Grand Yoff bon te à l'impression que nii bëriwul changement boo yow Grand Yoff nga dëkk di nga dem ay xar yàlla dem Cité Millionnaire dem Arafat dem fu nekk dem nga fa ci Grand Yoff mais da ngay gis ni daal euh, y' a pas des changements un changement majeur à Grand Yoff te loolu nag je pense que manque de vision la daal donc maire bi fi maire yi fi nekk bu nu amoon vision Grand Yoff dépassé na fii bu yàgg. est-ce que yéen pare ngeen. ah <laughs> pare kay ñun weesu nañ pare. yéen appelé yi. Ah, bien sûr weesu nañ pare te li ma la wax sànq rek. ñu ngi liggéey pour jëlaat commune bi. te xam naa ni incha allah danañ ko jël. Euh, yow euh, Ibra euh, ndax am nga yéene aussi nekk ci boppu mairie Grand Yoff waaw xam nga Grand Yoff mooy li ma la wax sànq rek. parce que problème bi du dem jëli mai dem nekk le maire. problème bi mooy fexewaat ba mairie bi ñëw ci loxo waa APR. loolu mooy objectif bi. loolu nag pour ñu def ko ñun ñu ngi travailler ak am na ñu ngi ciy travailler pour xool yan les problème pour fair la cartographie des problèmes de Grand Yoff aussi. ak yan ban solution lañ mën a apporter une fois que euh, APR nekk ci maire bi loolu nag dafa laaj liggéey da nga wër 66 quartiers yëpp rencontrer population bi xam nga discuter ak ñoom si seen problème pour xam aussi réellement lan nga mën a euh, teg comme programme pour Grand Yoff parce que il ne suffit pas ñëw rek indil leen programme comme sax mais il faut discuter avec la population ba ñoom nga xam seeni bëgg-bëgg boole kook nag yow vision bi nga am. pour euh, pour liggéey Grand Yoff. am nga yéene doon candidat. waaw bon xam nga loolu aussi parti bi moom moo koy décidé parti bi moom ku mu jiital rek li ma wax sànq ñëpp topp ci ginnaawam Grand Yoff nag tout le monde est candidat <laughs> ku jig ni maire bi laa bëgg. mais parti bi nag moom mooy décider. xam nga loolu tamit euh, nit ñi dañ koy wax responsable mais am na ñu xamante ne euh, duñ ci d' accord parce que tamit euh, ñi nekk ci gox bi ñoo gën a xam gox bi parce que aussi c' est vrai que yéen ay responsable ngeen. Mm. mais am na ci nit bi nga xamante ne président bu ko waree jiital. Mm. te yen ngeen jàpp ne kooku il ne fait pas le poids Grand Yoff. Mm. te boo leen demee amoo leen chance ngeen gagné est ce que bu ko bàyyee da ngeen gëm rek ànd ak moom. dégg bu boobaa kay dañuy wax ni ñun kii mënuñoo gagné. xam nga élection locale nag ak pré élection présidentielle c' est parce que élection locale nag moom mbirum nawetaan la quartier la donc loolu pour nga gagné fii Grand Yoff moom il faut nga nekk koo xam ne da nga xam Grand Yoff socialiste yi moom gagné yi ñu fi gagné yëpp socialiste yi mën naa ni expérience boobu lan am xam nañ Grand Yoff mais APR aussi am na ci ñoo xam ni maîtriser nañ Grand Yoff donc tey jii président bu demee bay jiital da nga jël koo xam ni booy Grand Yoff la doon un Grand fois de souche xam biir Grand Yoff xam ne tey jii boo ko jiitalee parti bi mën naa gañe Grand Yoff mairie bi. Ibra euh, lu ñu cëraloon ci waxtu ci émission bi euh, daanaka jeex na takk ñu bàyyi la rek euh, bu dee am nga benn message boo bëgg a jàllale bi nga xamante ne laajuñ la ko ñu bàyyi la nga daal koy jàllale su ko defee ñu ñu tàggatuwaale. waaw message bi may jàllale rek mooy xanaa di leen gërëm. di gërëm waa Afia parce que aussi rajo communal bu am solo la ñu bari dinañ fi jaar di def seen émission jàllale seen message. mais aussi dama ci profité rek pour euh, wax les bonnes volontés yëpp aussi ñu gën a jàppale rajo bi parce que euh, rajo la boo xam ni vraiment mi ngi def liggéey bu am solo à Grand Yoff aussi mi ngi mi ngi jouer rôle am parce que aussi xam nga média dafa nekk benn pouvoir boo xam ni message yi bu buñ ko fi jàllalee rek tey jii am na ñoo xam ne buñ ko déggee mën nañ ñëw indi seen pierre à l'édifice changer Grand Yoff donc daal vraiment loolu damay profiter occasion ñaan toutes les bonnes volontés ñu ñëw jéem a équiper rajo bi jéem ko jàppale. léegi bon beneen bi may terminer rek mooy euh, jéem a wax ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi Grand Yoff nekk de am yéene pour jëm kanam ñu ñëw ñu di waxtaan pour jéem a xool nan la ñuy développer Grand Yoff. beneen bi aussi mooy euh, sànq wax naa ko bi may commencer sur le pétrole boobu aussi bëri na ay opportunités sénégalais yi aussi gën a. informé wu sur ça pour xam tey jii bu ko waree exploiter yan kii lañ ci mën a am opportunité parce que y' a plus de deux cent dérivés yoo xam ne ci pétrole lay génn mooy plastique yi ngay gis essence les make-up yi femmes di def rouge à lèvres maquillage et tout ça. ak euh, yeneen produit ay engrais bëri na daal y' a plus de deux cent dérivés ak cinq cent métiers yoo xam ni ça tourne autour du pétrole loolu opportunité la te bañ aussi di déglu yàqkat yi yàq. parce que Sonko bind na ci livre Thierno Alsaan bind na ci livre bon livre bi bëri na ay contre-vérité am na benn émission bu ma ko wax tol mais loolu j'espère que on aura l'occasion benn jour bu ñëwee fii dans dans débattre donc maa ngi gërëm ñëpp daal di sant ñëpp. di koy jaajëfal bu baax a baax moom mi nga xamante ne moom mooy euh, Ibra Seck ne woon na suñu gan euh, ni kii tey kon ci seen biir émission ëttu politique euh, muy ingénieur géologue MBA en administration et gestion des entreprises membre APR la membre itam association des ingénieurs géologues membre de l' association des géologues d' mu jiite itam ñi nga xamante ñoo fare fii ci Sénégal ci présentation mi ngi àndoon ci ak daje incha allah dimanche bu ñu dëgmale ci seen beneen numéro émission ëttu politique laata loolu mbokk yi asalaamaaleykum